bu ñu jógee ci loolu ci football bi nag ñu dugg ci loo xam ne vraiment euh, ñëpp la ko xamee muy social. pour cent deux cent pour cent social trois cent pour cent social tey yaay booy koor di ñëw ñu xam ne koor soxna Aida macha allah du denc dara lépp lu mu am lépp lu ko Serigne Saliou jox rek delloo na ko jaamu yàlla yi néew si doole yi tey yaay booy koor gaa ngi ñëw lan nga nar ci koor gi. ñu ngi leen ci kër gi gis nañ macha allah euh, kenn amul foo teg sa tànk ngir ay saaku ceeb lu nekk. genre teraanga bu nekk te te lii la. li ñëwagul la ëpp de barki Serigne Saliou waa sant Serigne Saliou di wax jër jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou ndax munoon naa bëgg a def te du ma mën a def. mais damaa yaakaar borom jàppandal ak njuru nag daaray ndokaan ak borom njawaan nga ca xay ga bàyyi Serigne Cheikh di ñaanal génération Serigne Saliou ki euh, ndax nag euh, damay taalibe Serigne Saliou waaye dama am xolu yërmande xam naa yërmande gi nag li ma amoon ci fi ma juddoo ak ñaanu waajur yi. ak ñaanu sénégalais yi ndax àdduna wërngal képp ñëpp may ñaanal. yàlla dafa dogal nag man sama fierté bi ma doonee soxna Aida ba léegi ñëw sa àdduna man damaa bëgg a sos sol euh, social. sociale man tous les jours laay social ndax saa yu ma liggéey ba ngoon jot bëgg naa jënd au maximum cinq ordonnances wala dix ordonnances wala ma ànd ak nit ba hôpital. maa ngi nuyu médecin yeeg major yëpp ñoom xam nañ man xam naa euh, di nuyu pharmacien yëpp xam nañu man xam naa ndax àdduna yàlla daf ma fee teg mooy li may wax rek lépp lu nekk ci réew mi bëgg naa cee wax suma ci waxee suñu borom may ma mais dafay fekk nga am ci loo nekk lu suñu borom nangu parce que gémma ñi may ñaanal yëpp ak man li may am fi ma koy dugal maa ngi nit ñi bokkuñu condamné man damay condamné ngir réew mi ki doon jooy ma nax la nga noppi nax la nga noppi nag bokk na ci nit ku jaaxle xool la nga fajal ko jaaxleem xam nga weeru koor nag daf ci ñëw ndax ci lañ dëgmal nii ay fan yu néew ci des yaakaar naa tey la première waaw suba suba la première tey la kon tey la 31 daanaka fi mu ne boo duggee ci kër gi fekk nga sama propre moyen laay demee gum nii. saako yu bëri ba yeeg diwlin beeg lépp sa propre moyen. Serigne Saliou am na lu ñëwagu te samay propre la man lu ma liggéey ci lii lay dem. barke Serigne Saliou. daara yi dañ koy soxla. ndax mën nga toog du weeru koor nga añ fëq na reer mais koor. temps bi dafa gàtt liggéey bi gàtt te jaboot bu ne bëgg nga booy tëdd am loo def ci sa biir naxee ko sa njaboot tëdd te jaamu yàlla mun a weesu weeru koor jaamu yàlla chaque jour war na jaamam mais weeru koor nañ ko ci ràññee bu baax am na tey ku feebar nekk hôpital bëgg a jënd ordinance amul ordonnance te soxna ay de social fépp lay dem amul xaj amul seen yow mi mu xamul ak yow mi mu xam ak ñëpp ci bokk yam te fi mu ne daanaka am na doole. ndax sama doom ji faramaareen bi. dagguma la mais dafa mel ni nga wax sociale macha allah faramaareen bi muy Wally Ballago le centre du peuple le soir du peuple sa doom sa lépp sama frère moom itam daf mel ni social 100 pour cent lay dox chaque jour saa yu xëyee loolu lay dox mais rawat na koor ne sa doom ji euh, daanaka fi mu nekk nii lim man li ma li nga stocké nii ci kër gi samay propre moyen la mais moom fi mu ne nii lim ma chargé mu war a ñëw mën naa dolleeku ci ñi nga xam ne ba ma tàmbalee social ba léegi war na leen a mën a regg. moom Waly Waly Seck lim ma taxaw barke Serigne Saliou laa lay waatal kooku jëfam ak xolam fi mu yegg li may wax ci président rek ñoom ñoo yam xol parce que xam nga ne président bi jigadi wunu waaye xam nga ne waali sekk jigadi wunu ndax ndax ndax boo xoolee coupe du monde coupe d'Afrique ah président Macky mi nan ko joxaat sansam de hmm, nan ko ba mu liggéey ñu yor Paris mbaa ah. suñu réew mi xasaw na xunnu neex. xunnu dafa xasaw xunnu cuuraay gi ca biir pele ba. ak ñetti ndabu laax yi juróom-ñetti ndabu laax yi Marème Faye Sall di toog preuve am de ñi ngi am preuve de lii nag yàllaa ñuy wan boppam rek xam ni yàlla ànd naa ñun uh-huh. tamit ñuy wan ay preuve seede nag day doy Sénégal na xamuñ junju uh-huh. déggin la xam mi ku fi sànneeti xeer mbaa nga bëree di sànnantey xeer ah ku njëkk a yëkkati xeer bi mën naa xeer bi lakk la de mbaa mu dalaat ci sa kaw nanu mooy tonte nag te góorgóorlu te liggéey te ñaanal Wally Seck social bii daal soxna ay Aida dem naag doole ma kàttanam ndax maa daal demal sama bopp te kenn mësumaa ba max man kenn mësumaa ba max ren laay doog a am ku ma ba max mu commencé ko ci Wally ba Seck commencé mooy looy mooy def lu baax commencé ko ci sama doom ji mën ci sama anniversaire bi fa laay yem du waykat mm-hmm. du waykat mm-hmm. du politicien mm-hmm. kuy liggéey la rek yaakaar ñaqam waaye ni ma def ci sama anniversaire bi yàlla na ko sëriñ Saliou bertey teraanga faramaareen gi nag sant naa ñëpp video yi ñëw na kontaan naa waaye bëgg naa ci yow de social bi nag amul fu ma bëgguta dem waaw social bi nan nga ko joxee gis nañ macha allah li fi ci ay toni ceeb la yaakaar naa ay toni suukar ay toni diwlin tey nan nga ko joxe ci koñ bi nga ko joxe wala par kër ngay dugg wala da ngay dem ci daara yi wala da ngay dem ñoo xam ne tey bu ñu añee du ñu reer seen loxo jël seen ginnaaw nan nga ko joxee xam nga nit ki boo dee xool ci comportement doo ko jox social ndax am na ku bari sax koo xam ne day solu ba rafet waaye fekk na kër ga dara nekku fa moo tax ma bëgg a xam ne rek bugguma mu am xàjj bugguma mu am seen damaa bëgg daal ku yéenee am def te xëy na mu jote woo pour def ko soxna Aida bu ko yëgee dana ko booleeg sam def ko maa ngi ciy woo ñëpp nag sama doole bopp laa daan am kenn ba ma waaye bari ñaar am na daal ñaar ñoo xam ne ba ci ñett ak samay jour yoo xam ne tey jii ci lii ci preuve bi moo tax waaye ñeneen ñi maa ngi leen ciy woo man woowuma kenn ci lu may jox na am naa mais nanu ñëw ci sol nañu ñëw parce que yaay doguma la mais am na ñoo def social mais xamuñu fu ñu koy jaare tey muy jour nekk international ak ñeneen ak ñeneen ak ñi nekk ci nga xam ne mooy loolu bëgg def social mais buñ gisee ku mel ni soxna Aida yi def social dañ ci dugal seen loxo kon yaakaar na soxna Aida mu ngi woo ñëpp képp koo xam ne rek social ngay def te euh, mënoo ko rek nga jaar ci soxna Aida numéro bi daw ci baa d'écran bi boo ko wootee rek incha allah di nga euh, sa loxo nga dugal ko ci nga xam ne mooy social bi no kaa leen ànd defal yàlla kaale leen ñu ànd ci keppaaruk Serigne Saliou gi laa woote kaa ñu ànd ci keppaaru Serigne Saliou gi benn tàndarma boo ko joxee jullit bul xeeb bul xeeb ba kañ lay am lii di ko def soxna Aida bi mu koy def benn saako ceeb ñaari saako ceeb la daan taaj di ko séddale ci ay kilo waaye at yi ma weesu yëpp ay ton laay am ton du lu may du du lu may am du dara mais ndimbal sunu borom la dafa ànd ak ñi ma koy jox seen ñaan dal ma ñaanu ñëpp dal ma ak yéene ji ma koy defee woo naa ci ñëpp nag ki am genn waa libaru tàndarma soxna Ayda woo na la nga ñëw dugg ci biir social bi social bi soxna Ayda bàyyiwul kenn lu waay mën a def def ko ci biir ñu jottali ko ndamu ndamu yàlla la ndabu liggéeyu ànd liggéeyal yàlla la kaa leen ñu dem ci seet jullitu yàlla yi ndax ay dakkat ku jaaxle day ñëw ci moom xam ne ñi ko yelloo ñu dem jox leen ko lii rek laa àndee. kon dégg macha allah ndabul yàlla la lu ci waay def rek yàlla nga ko defal def yàlla tax la ñu wax rawatina weeru koor bi macha allah muy def sociale mu ngi ci woo ñëpp bàyyiwul kenn amul xaaj de seen. képp koo xam ne rek ku tudd seen tur fi mu ne am na ñoo xam ne ñi ngi def mais bëgguñ ñu tudd seen tur toog lu mu bëggul duma ko ko defal hmm. nit lu mu buggul du ko ko defal sama doom ji sax faramaarim bi bugguloon ma tudd ko waaye nag dinaa ko tudd dinaa ko tudd nag ndax li tax ma di ko tudd mooy dañ koo xam fu ñu nee soxna Aida ni Waly fu ñu nee soxna Aida ni Waly kon dama dinaa ko tudd mais am na ñoo xam ne ñi ngi def te bëgguñu kenn tuddu seen tur ki ma lay wax ci sama doom ji ci surprise bi ci anniversaire bi te du way te du politicien du dara day liggéey di ñàkk te li muy am mi ngi koy xëpp ci man di ma ko bokk ak man di ko bokk ak askan wi kooku laa wax waaye nag maa ngi woo ñëpp maa ngi woo ñëpp nag. barkeb sëñ Touba. dégg nga li yaay wax macha allah maa ngi woo ñëpp comme képp ki nga xam ne bu nga ci barkeelu rek ci defal yàlla bi ci ay demu Serigne Saliou voyante mag macha allah xam ne social lay dox numéro boobu jot baax d'écran bi rek boo ko boo ci wootee rek lépp loo xam ne moom nga bëgg def ci ndabal yàlla rek incha allah nga jaara ko sama yaay sama yaay lan ngay tàggoo. sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla nañu fekkee koor gi. dund ko te dund ko at yu baree baree baree bari te nii dëkk bi ne tekk ni ci jàmm nanu ko continuer amul solo xale yu jigéen itam ma leen di wax comme la xew mbuur ñu koy wax ni euh, na xale yi delloowaat seen xel ci yàlla te góor góorlu te waajur yi tamit gën a sàmmaat ñi ay xale lañu ci waajur yi rek lañ sàmm bee des topp bee des na ñu dimbal te yàlla ànd ak ñun te dimbalinu te xam ne njaboot gi njabootu ñëpp yàlla doole ñu sutura doole ñu jàmm dëkk bi am na nu mbégte waaye am nañ jàmm yàlla jàmm ji sax yàlla jàmm ji yàgg président Macky Sall yàlla na yàlla defar sa lépp macha allah liggéey bi rafet na te jigéen di wooju macha allah am na ñu teer am nañu coupe qualifié nañ lépp sant la te mësuñu ko am ku ne jaar na fi waaye lii ta am cin nag neex bu baxee xeeñ te bax na de bu nu ko kenn yàqal te xale yi bu leen dof xam leen fi mbir mi ne. yàgg ngeen a dund seen mag nekkoon nañ fi seeni i baay nekkoon nañ fi seen yaay nekkoon nañ fi waaye histoire bii fi am ren histoire mosu fee am ñu ngi doog a dégg histoire ci président maki sàll waaye ci président ci première dame Marème Faye Sall yow ñu ngi lay woo ci social bi ndax mën nga ko xam nga ko miin nga ko jàpp nga ko kon ñu ngi la ciy woo. kon déggal sama yaay wax social laay wax toujours rek parce que mu lay gën a focus. waaw suñu dégg nga ne sama moromu seetkat yi tamit ñu ngi leen di woo ci social bi kenn ku nekk bul xeeb li nga am li ngeen di liggéey rek laay liggéey nanu dajale jéem a fekk kenn ku ne fa nga nekk ñu def yàlla baax na bu yàggee réew mi. nit booy nekk cim réew di wax ñu lay déglu war ngaa wane référence war ngaa wane sa waxe kese yi du jariñ dara nga jëf jëf day bokk waale ngi jëf ci musique mooy mooy mooy mooy centre de peuple waaye mooy social de peuple waali mooy waykat de peuple mooy centre de peuple waaye mooy social de peuple parce que social bi muy def li nit ñi yëg li nit ñi yëgu ko raw man du ma waxal kenn nag su ma dee maag sama nijoo bi yeeg layoo kenn du deeyaaleel kenn kenn du yóbbaaleel kenn li muy def ci suuf te nit du ko yëg bëggul ku ko wax. xoolal nañ jël ñu baax ñi waay référence yi waaye. xoolal réew mi neex na waale ngi way ba mu neex président ngi liggéey ba mu neex waali. ah dañu bàyyi showbiz bi di boole lu bokk lu bokkul kenn du ko boole. ah Angleterre ak pomme de terre benn ah nañ bàyyi showbiz bi te roy ci waali jéem a liggéey góorgóorlu. ah jërëjëf lii waay ah ok. am solo.